الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu Fayda bi Kossy TV cosaanu Fayda bi waaye xam naa ne ñu bàyyi la tuuti nga noppalu man Aïda damaa bëggoon damaa bëggoon nga wax ma tuuti ci Cheikh al Islam Mame Baye Niass kan mooy Mame Baye waaw laajte nga loo xam ne lu lu doy waar la ndax moom Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dafa nekk koo xam ne mhm. dafa ñëw réer ñu mër wane yàlla moom bi ñëwee macha allah ñas daf ne kaay leen ma wan leen yàlla moom kan mooy waajuram moom maam alxaaji abdul ilaahi ñas mhm. mooy waajuram mhm. waaye xam nga moom mission bi ko tax a jóg di mission xamle yàlla mhm. loolu la wane muy koo xam ne ay guddeem ay bëccëgam ay yëngatoom ay dalam yépp mu ngi ko jël teg ko ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy référence am bàyyi mooy ki nga xam ne ku naqaree wax nga ma wax waaye doy na ci rek ne bàyyi Eh, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moo bëgg yonent bi sallallahu alayhi ah, moom loolu lay tiitaroo loolu lay puukarewoo ànd ak nag ay mayu rëy yoo xam ne ni yàlla may na ko ko waaye lépp mu ngi ko jël njukkalee ko yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi doy na ci Cheikh Ibrahima Niass eh, ki waxoon ne isa saara xayru naasi سرت وراءهم وإن حل يوما فالمصير بعيد mu ne moom Baye moom Mawlana Cheikh Ibrahim bu yonent doxee moom Baye mu dox topp ci kaw yonent waaye bu yonent taxawee dox amatut dafay taxaw moom Baye mooy koo xam ne nii léppam daf koo jël jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi nag ba àndut ci ak sagoom bëgg yonent bi ba wax inna nii xablal baraaya xubbu sholul jinaani fa huwa akli wa sharabi wa huwa diini wa jinaani mu ne moom njëkk a am ak mbindéef moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mu ngi fi woon di bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam mu mel ni dañ ko laaj ne loo doon lekk wala loo doon naan ndax bal yàlla amal dara laata yàlla di amal dara mm-hmm. mu ne moom Cheikh Ibrahima Niass mu ngi fi woon di bëgg yonent bi sallallahu alayhi mu ne fa wa ak lii moo doonoon sama lekk wa sharaab yi moom yonent bi moo doonoon lekkam mm-hmm. wa sharaab yi waaye moo doonoon naan gi doon naan mm-hmm. wax wa diini mooy sama diine moom yonent bi sallallahu alayhi sama jinaani waaye mooy sama aljana kon kooku macha allah neexut a wax ci moom parce que Baye kenn xamu ko Baye munuñ koo xam fii munuñ koo xam alaxira waaye nag ñëw na nekk kaay leen ma wan leen yàlla moom yàlla la wane liñ lay mën a wax tuuti ci yàlla sax ak moom tuuti tuuti tuuti ak suñu xam-xam bu fekkut ci Mawlana Cheikh Ibrahim waaye daal doy na ci ne moom jaamu yàlla la boo xam ne ku bëggoon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te ku ko toppoon la ndax wax na ne maa ngi sant yàlla man Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba yàlla dimbale na ma sama bakkan musuma jéng jëm ci lu neexut hmm. kooku mooy Cheikh maa ngi topp rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nga jox diggante Baye tuuti ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. waaw ba tey. waaw wax na parce que. Euh, dafa am ñoo xam ne sax ba tey comprendre luñ. bàyyi da koo boole ak Cheikh Ahmed Tidiane waaw mbiru Cheikh Ibrahim. Mhm. ak Cheikhu Tidiane. Mhm. parce que am na ñuy wax tiijaan ne ñeseen. Mhm. bokkuñu. Tidiane ak ñeseen. ñaseen euh, sant la rek Baye dafa sant ñas dafa sant ñas mbooleem ku sant ñas rek ñu ne ñaseen yi papaam ñas Maalaaji Abdoulaye léegi nag comme lew na googu noonu ñu doon wax lew na ñeseen ñeseen ñeseen ñes sant la mm. ñeseen sant la waaye Mawlaana Cheikh Ibrahim mm-hmm. taalibe Cheikhu tiijaan la mm-hmm. taalibe Cheikhu tiijaan la mm-hmm. dem na ci ba wax ne moom ñaari sëriñ la am ci zaahir ak ci baatin mu ne sëriñi zaahiram kooku mooy mooy yaa daba borom ataaya ji macha allah joxal gaa yi ah, xam naa ne waxtaan boo ànd ak ataaya dina neex tuuti macha allah am na solo incha allah mhm, baay mu ne suma sëriñ ci zaahir mooy alquran ak sunna mhm. mhm. moom Cheikh Ibrahim waaye gisul ku ko ko gën dégg mu ne sëriñi baatinam mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waaye mu ne moom du tàggoog Seexu Tiijaan benn génneeku bàyyi mu li liyee bàyyi ak Seexu Tiijaan Seexu Tiijaan junj na ko ci téeréem bind na ko ci téeréem balaa muy génn àdduna moom boole na ko ci ay mbind li ko boole ak Seexu Tiijaan waaw Seexu Tiijaan junj na Mawlana ne sama tarixa bi faydu dina ci feeñ faydu dina feeñ ci sama faydu mooy lan sonaay da waaw faydu niñ ko mën a misaalee mooy loo xam ne dafa fees bay tuur faydu bëbb hmm. dolleeku la paan boo ko tegee faydu dolleeku la ci ci ci ci ci tarixa Cheikh Tidiane bi wax gëdd te loolu moo Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla teg na ko ci loxoom Cheikhu Tidiane waxoon na ne taati faydatun ala asaabi yadxuluuna si fii tariqatuna afwaajan afwaajan borom faydu boobu Cheikhu Tidiane mel na leen na ko ba ne bis bu feeñee ci sama faydu bi dina dugal ay kuréeli kuréeli kuréel ci tariqa bi waaw te dina bëri ñoo xam ne danañ ko topp ci ñoo xam ne nii bokkuñu ay xeet te soo seetloo bàyyi ñu ko topp bari na ñoo xam ne ni bokkuñ ay xeet bokkuñ boo demee ba ay Cameroun ba ay Tchad Nigéria bari na ñoo xam ne ni ay xeet yu bokkul lañ mosuñu nangoo laaj am na ci ñoo xam ne ay xeet yoo xam ne mosuñu war a nangoo boole leen dem nañ bay takkante di sëyante macha mhm. bàyyi li ko lii ak Cheikhou Tidiane bari na waaye loolu rek lenn la ci ne tariqa tijaan bi bàyyi am na ci ndollal loo xam ne ndollal lu rëy la muy faydu bi nga xam ne nii moom la ko yàlla teg ci loxo ñu ngoog tariqa tijaan cheikh al maam Baye am na ci loo xam ne liggéey na ci ba am ci loo xam ne moom la ko yàlla fayee mooy faydu bi bu ñu waxee faydu bi xel yëpp dem ci cheikh al islam maam Baye bu ngeen gisee ma di laaj euh, soxna Aida laaj yi ma laaj ko xam nga nit lépp lu muy yëngu nu nekk rek war na cee am lu mu ci xam te macha allah ni nga bokk ci kër Cheikh al Islam mam Baye am ci xam-xam bi dafa dafa am solo lool.